7 février 1986 7 février 2020 fanweeri at ak ñeent ginnaaw bi fi boroom xam-xam bu mag bii di Cheikh Anta Diop bàyyi ko wuy ji boroomam ñu duppee ko daara ju kawe ji ci ndakaaru waaye ndongo yu bari ya fay jànge umpale nañ kan mooy professeur Cheikh Anta Diop. non pas tellement comme notre système il est euh, gars duñ favoriser suñu yu euh, Sénégal jël Victor Hugo Lamartine mais trop égyptologue sénégalais Diop carbone 14 mouvement tontu ñu li. Chance d'opinion dafa am dafa am borom euh, xam-xam bu l'émotion est nègre la raison est hélène benen xam-xam naataangoowam bu wax leneen lu am importance ci benn livre bi publié en 1939 cahier de retour au pays natal du ma tudd tur bi ceux qui n'ont exploré ni les mers ni les cieux mais qui connaissent anciens moindres recoins le pays de la souffrance ñoom ñu ngi doon wax le noir créé wul dara exploré wul dara inventé wul dara parce que seen xam-xam ñu ngi ko basé woon ci benn livre bu benn français bindu bu tudd le conte de Gobineau bu traité sur l'inégalité des races l'art est une manifestation inférieure de la nature humaine Nous sommes basés sur ce que nous xam Cheikh Anta Diop fait ce que la scientificité science humaine dafa a science exacte Cheikh Anta Diop prouver euh, développé Cheikh Anta développé Cheikh la science divergence d'opinion te loolu lu fës la ndax Cheikh Anta Diop tëj nañ ko épisode boo xam ne duñ ko faral di wax la Cheikh Anta Diop tëj nañ ko prison pendant un mois en 1962 entre juillet ak mais prison wu Diourbel ci loo xam ne du dara lu illégal Cheikh Anta Diop journal bi mu créé bu mu njëkk a bu tudd Siggi dañ ko dañ ko dindi dañ ko dañ ko euh, supprimer mu créé waat beneen journal bu tudd Taxaw kon dañ ko yàkk tegal ay obstacle géeru dundam yépp waaye toujours ripostam riposte intellectuelle lay doon xalaat lay def

donc bu ñu amul woon chance xam Cheikh Anta ba ñuy nekk école primaire bu ñu demee tey ba yàlla def ñu xam ko war nañoo xam ne am na lu ñu war a def ci suñu rax yi te loolu projet la boo xam ne dafa bokk ci biir carbon 14 tour bi fas yéene wu ñu ko yemale rek ci lycée yi wala ci université yi mais bëgg nañ tamit dem ci école yi ci daara yi ci suuf comme ni ñu koy waxee dem wax ak élèves yi wax ak professeurs yi surtout loolu wax ak professeurs yi tam que ñiy jàngal élèves il faut que ñoom ñu xam mooy Cheikh Anta Diop wax ak ñoom mën nañ ko def en tant que mouvement mais dafa am loo xam autorité moo ko def le 28 mars 2019 ci mémorandum bi dafa amoon point bu am si importance mooy l'introduction des enseignements de Cheikh Anta dans les différents curricula de l'école élémentaire à l'école doctorale C'est ce que autorité bi moo ci ci mën muy état damay en 2016 le 10 février plus exactement conseil des ministres bi amoon Daniel jëloon le président de la république les ministres décision sera effective yaakaar 2016 février 2016 février 2020 lu fi waaye bëggoon na def volonté ngi fi. kon loolu waxtaan piste de réflexion ba lancer un appel solennel.

Cheikh Anta dajale woon na ay xam-xam yu bari doonoon na historien philosophe scientifique égyptologue waaye yooyee xam-xam mu dajale woon terewul doomi réew mii mu juddoo umpale nan kan mooy Cheikh Anta Diop.